mais nit ku ne sañ nga génne sa xalaat. Hmm, hmm. ku bokk ci réew sañ nga ko. Hmm. ni ma tëbee ànd ak sunu kilifa ñu def téléthon. ma engagé ko. nekk ci tele euh, télé ba. samedi di ratatati. ba ñu dajale li ñu dajale. suñu kilifa dolli ca la mu ciy dolli. muy onze millions cinq cent ma yóbbu ko man. noonu laa sañee joxe sama xalaat. man duma wax kat. bu ma kenn rey mm-hmm. man jëfkat laa mm-hmm. du ma wax kat réew mi dama cee jëf lu bëri mm-hmm. régler fi lu bari defar fi lu bëri waaw sañ na maa wax ci réew mi li ma gëm mooy ñaan dee gëm naa ko ak duwaawu silaahul muumin gëm naa it ñu defee ko ci pàkku yàlla mais man sama kër mën naa bañ a lew birig ya fa ne mën naa bañ a lew kër ga mën naa bañ a sell dégg naa bi ngay wax ci laab ba ci ku dem wanag ba ku seeg sa jabar ba néew bi ñuy sang mm-hmm. ba booy jàpp mm-hmm. nit suma kër mën naa bañ a laab mm-hmm. sa kër mën naa bañ a laab waaye néegu yàlla laab na ah su xol yi sellee ñu jël téere sunu borom bi toog julli ñaan yàlla yàlla mën nañoo suturaal mais sañ naa ko wax yeneen fi moo ne ak duwaaw moomin ñaan mooy ngànnaayu jullit alors man nag ku am sa xalaat yaa xam mais man su ma xalaat sañ naa ko wax si li ma jàng dinaa ko wax. Mm-hmm. bi ci des yonent bi dem na xare paap. Mm-hmm. dëgg la. salaatul xawfi mu ngi ci alquran. Mm-hmm. abdu ñëw na wala ñëwul. ñëw na bu wér. ah wallaahi. foron euh, ba wóor na du wóor na leen ne dañuy dee. waaw ku ci daan dem da ngay oo sa njaboot tàggu leen ne leen maa ngi dem mën naa am du ma dikkaat. mais hmm. est-ce dem ci jàkk de euh, corona dafa toog di xaar nit ñi. déedéet xaaru fa fa kenn mais ñii deeng leen di xaar ca front ba. wallaay ñuy xeex missile yi di ñëw bomb yi di ñëw. Hmm. ñu di leen ko tuur. Hmm. ba julli jot yàlla yebal Jibril ni ko waxal Moustapha lu waaye di woote da koy niru. nañ julli. wallaay wallaay. ñu ne tareen mbooloo ma ci digg ba. genn wàll gi julli ànd ak ci bi. genn wàll gi dem di xeex. ña doon xeex bañ pare ñëw. jël jaas yi. Hmm. jël sa jaade yi julli. Hmm. ñu doon julli jël xe jaas yi xeex. Hmm. bañ jullee pare àndandoo ñoom ñëpp dem di xeex. mais loolu am na. li ma jàng nag du ma ko bàyyi. non non non du ma ko bàyyi. moomu ma kenn nag. waaye nag sañ na maa wax li ma jàng. sañ na maa bu xalaat jotee sañ na maa génn sama xalaat. la ca def sama yoon ci. ku ci ne am nga droit. génn sa xalaat. Mm-hmm. am nga droit. Mm-hmm. na nga déggee sa njàng nga wax ko yaa xam mais fexeel. Mm-hmm. fexeel ba na ko yàlla lal nag. important. parce que yàllaa ngi sëpp xol yi. yàlla mooy wax loo làmmiñ. fexeel ba la ngay wax na yàlla tax. am na ci solo nag. surtout. donc. nañu dalal xelu njaboot yi bàyyi di leen tiital. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. feebar bi fekk na fa ay feebar. mais feebar bi léegi mu dem Abdou. dëgg la de waaw léegi mu dem de. mission la doon dox rek jeex na wallaay wallaay euh, mu ngi defar ay dëbësam. mu toll nii saagam lay yeb ay bagage am. wallaay wallaay mu ngi ci yoonu départ. dëgg la ay quelque booyam ñoo ñoo ko xaw a ñoom lay xaar. dëgg la waaw mais pare na. dëgg la de wallaay. isa mastadda usrun lu ca topp. fa yusrullahi fi amami. jeex na. Mhm. mission bu jeexee borom day dellu. Mhm, mhm, feebar bi jeexal na mission mi yëpp. day jël bagage dem yoonam. bañu fi ñu nekk fi. nañu gëm yàlla. nañu dellu ci yàlla. nañu wóolu yàlla. di bàyyi caaxaan. jël xaalis teg fële. jël yàlla jiital ko lan mooy xaalis. lan mooy ndombo tànk. lan mooy yooyu. mais yàlla boo ko gëmee dootoo gëm leneen mm-hmm, mm-hmm. su nekkee sa xol dootoo faale leneen mm-hmm. ku dof nag ba jël sa xol def ci mbindeef dana la alak feebar mbindeef la buñ ko defee sunu xel yi day mujj nag feebar bi dem ba pare des fi nu mu fiy desee mooy dañ koy xalaat te feebaru xalaat gën a naqaree faj dama dama damay dem di liggéey ak bi may dem ci ministère bi mhm. waa ji ñëw sama oto paa foofa na moo ñu doon conduire mhm. maas ak may dégg mu ngi ci oto bi mhm. euh, Ahmed Aïdara ngi ci oto bi ñu ñu di ñu def sole boobu di xool suñu tempérament biñ defee gaa yi jëm ci man ma tàlle sama musuwaa ko noono bu ma def mu ne ma Iran dimbali ma ne ko noono man dama yor tàngoor su ma nekkee sax fu damay xëm su ngeen ma ko dëppee ma dem ci cent ngeen ne damaa corona <laughs> adduna bi yëpp di ma daw man bu ma ko dëpp man xam naa sama feebar man dama yor tàngoor mm-hmm. ah. te gannaaw mbir mi da ngeen ne ci tàngoor la bokk ak ah. dugg na fi génn boo ma ko ne tay ma dem cent mm-hmm. da ngay daw ne ministre bi bu ko recevoir mm-hmm. ah. mu ngi ci cent bu ko defee ne ministère bi yëpp di ma daw ma dem seen TV buggaan naan man ngaa toog ba fan yi <laughs> ma ñëw ci euh, euh, daara ji ñu ne noono Iran nañ ut fu ñu ko yóbbu parce que nanga dégg naa dafa corona ci man xam naa sama tàngooru yaram ah man fu ma nekk bu xatee ma xam bu tàngee ma xam mm-hmm. alors que yooyu il faut ñu wàcce nag mm-hmm. coow li dalal ko mm-hmm. nit ñi dem liggéey gis nga Aziz ah. yëg naa loo xam ne suñu toppee feebar bii suñ demee ba mu jël bagage am ba ñibbi. Hmm. Sénégal dana perte lu bëri ci dund. Hmm, hmm. man maa la ko wax. talatuñoo jaay talatuñu daal. waa léegi ma laaj la Pape Gueye. garage nit ñi nekkuñ ci ot yi dugg ko génn. ankañ. lu tax tëjuñu garage. surtout. lu tax tëjuñu marché yi. lu tax tëjuñu hôtel yi. lu tax tëjuñu restaurant yi. Ah, lu tax tëjuñu euh, euh, euh, auberge yi. lu tax arrêté wuñ tata yi. booy yëppay fees dell. Uh-huh, dëgg la. dafa am loo xam ni boo ci jéemee pexe da ngay dangay mm-hmm. mm-hmm. da lu sabablu ti bàyyi ak yàlla mbir yi. Mm-hmm, loolu moo ci ne nañu ñaan. nañu ñaan. nañu may nit ñi ñu toog ñaan. ku ñuy ñaan sunu borom. bi ci des. man iraade aw mu fitu mukk ci àdduna. lu yàlla digle man ma cee wax leneen. jamais. man ñemewuma ko. en tout cas daal aw ma fitam hmm. li ma gëm daal mooy nañu ñaan hmm. li ma gëm it nañ dellu ci yàlla hmm. li ma gëm it ku lu dul yàlla neen la waaye waaye waaye waaye la ma waxoon benn nit dañ ko seet ne ko danga ngaa jabet ci daara ji lañ ko seetee ne ko da ngaa suukar da jabet rek maire bi yuuxu di jooy bëgg fee xam ne waay waay dee naa ma gi ubbi ne lan la ñu ne ma meer bii de moom mooy yuuxu ma ne ko soxna si kaay mu ñëw ma ne ko lan la. Mm-hmm. mu ne nee nañ dama jabet. Mm-hmm. ma ne ko xam nga yaa ngi koy doog xam mu ne waaw ma ne ko ndax boobaak léegi yëngalu la métti mu ne déedéet ma ne ko ñaata dëj nga fi dem mu ne ma bëri na ma ne ko lii du rey. Mm-hmm. du la rey feebar du rey. ku matalul doo dem. matala bu àndal ak sa sago. ba nga ko xamagul mu ngi ci yow. waaw bi nga ko xamee continuer dund la nga doon dund. nit ñi il faut sago nag. mooy fër fër télévision yi soo tot tot tot tot yi rajo yi ñuy mm-hmm. aggraver rek di gën a yéegal rek. Mm-hmm. wallaay wallaay wallaay. Mm-hmm. Pape Gueye bu xëyee sa yoggu yoggi sa xët. jabaram ne ko baar da danga da <laughs> ngaa beru sa néeg bi <laughs> waaw. lii lii tam xamul lan day day de. dëgg la il faut ko nag ni ñu wàcc wàccee. waaw parce que garaawul man pour man. Ah, ah. man pour man garawul ah, man yàlla laa jàpp ne moo garaaw. parce que moo jox jaan dangar. di. jaan di dox ci amul tànk. ci moo gën a gaaw luy gaaw. dëgg ci yorul tànk. ci bu ne la tuflitam woowu bu ñuy yéex nga dee mhm. mais yàlla moo garaaw bu ne moo fa denc lam fa denc qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq min sharri maa xalaq voilà yàlla nee musulul ci man rek mhm. lépp lu ma mhm. bind am na ay wu ma def ci moom am musib ma def ci moom ñaan ma ma musal la ca rek jeex na lu ma bind rek am na musiba bu ne ci biir feebar am na ko mhm. Mhm. jaasi am na ko mhm. paaka am na ko ba ci weñ wi sax mën na laa soro nga doxe fa dee ah. ba ci sànq lañ mën na laa màtt nga dee min sëri maa xalax ñaan ma ma musal la ci ayu lépp lu ma amal ak ayu lépp lu ma bind neel yàlla musal ma ci li nga bind lu am musiba musal ma ci musiba waa ki la ñaan leen ma kay nañ ko ñaan moo taxoon mu jox yonent bi fàlla xeeg naa si c'est ça le problème. Mm-hmm. Mm-hmm. nañu dalal xel yi. Mm-hmm. médecin nag doktoor yi. ñett rek la ñu soxla wax naa ko démb Abdoulaye Diouf saa daaree ba bëgg ne ma ne ko duma ma médecin nag. waaye lii ma lay wax médecin du ko dindi. mu ne ma mooy lan. ma ne ko docteur ñett la gën a soxla. su la digalee defal. su la teree bàyyi. su la bindalee demal jëndi ko. dëgg la duñ ko wétti de. dëgg la de. suñ la digalee def leen lii def leen lii def leen. su leen teree bàyyi moytu lil moytu moytul hmm. su la bindale ordonnance demal jënd bul hmm. lekk ci nangam bul lekk ci nangam bàyyi loolu Abdou Sall hmm. bàyyil dibi gannaaw tere na la <laughs> del lekk lii del lekk lii lekkal loola <laughs> demal jënd ordonnance bi jëndal loola indi moom it mu def sabab loom dëgg ñu bàyyi yàlla bu defee la muy def ñu bàyyi yàlla ak atteem bu attee mu dund moom moom su attee dee moom moom waaye jaam sabab lu la am sëñ Babacar daa ne sabab lu leen. Mhm. bu leen sukkandikoo yëngu yi. Mhm. Mhm. kon nañ leen dalal xelu njaboot yi. man loolu laa gëm ñu dalal xelu njaboot yi. bàyyi di leen tiital. bàyyi di leen tiital.